jaar ñëpp tey nag seen doom seen jarbaat seen xawle ñu koy wax Talfa borom kem bi dañ lay nuyu nag dalal la bàyyi la nga nuyu ñu lay seetaan. waaw di wax bisimilah auzu billahi mina wàllu yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba ginnaaw ba sant yàlla julli seen dëgg di sant sama ñaari waajur di sant sama papa di sant sama yaay di sant sama papa di sant sama yaay amoo seen fay quoi. maa ngi déglu waa koñ bi yëpp nag dérangement bi man seen doom laa man bi laa juddoo bi laa defee lépp. waaw maa lay jégalu bu baax nag xam na ne dérangement bi metti na trop man su ma amee combat gars yi kenn du dallu parce que sëñ Fall man damay indi nit mu bëgg ma bëgg moo xamante ni lu ma lay lu tax loolu parce que sëñ Fallou Bokar lu garaaw laa lay wax foofu laa ñëwaatee maanaam gars yi loolu xamal mafia bi xalfa booy ëppal presse sax gars yi bu ñu xam ne jàngat yow lan la dégg nga lu ma la lépp mbiru suñu borom la mais si kanam si kanam dañuy comprendre dal buubeen dal baax ak rak faran naan ojo bool leen zone nga am nag combat capital bu bëri mbër boo xamante ni lan moo la motivé tey ba nga jël ki nga xamante da ngaa bëgg a faj mer wala non man du question de faj mer bi da gis nañ ne da ko waaj ak say mbokk waaye waaj ko tam ak la ñu frappe liggéey ci combat lan nga si gën a liggéey combat bi combat bi li may wax rek ku gën a sonn si combat bi ah yàlla la suñu borom may ndam ku gën a si combat ku gën a dajay coona ci côté bépp nag yàlla may ndam man dal fa naa woote loolu. parce que amaana combat bi liggéey naa ma war a liggéey sama maam aada bool mm-hmm. xam ñoo préparé ndoo combat bi sama ndijaay Franc mm-hmm. sama nijaay góor a soog barke sëñ Fall ñu am seen fay yàlla rek am seen fay yàlla ñu am seen fay nag ñoom ñoo xam lu ñu bëgg ak lu ñu am seen borom defal waaw lan a liggéey ci combat bi rapidité xeex endurance lan a liggéey bu doole lan dama ni la man bu gémeur dara su ma ñëwee bëra dóor ren wax amaana am na lu ma ko wax nag nee naa ko kalam gi dafa naes mais dama bëgg xoolal <laughs> dal bu lay tegal de li tam sama ginnaaw dafa bari de parce que Sëñ Fall damay jixaat Bakar ki damay jixaat ak moom ñëw li ma am li ma moom laay jël man naa ko fa am naaj. que nekkul say mbokk la wër say nijaay say am di wër la parce que paa bi champion xale la mais champion dama ne la man. waaw man ger naa ko fu nekk. benn nit jaaxaluma. rek ger naa fu nekk. kii jaaxaluma sax. lamb la de. non lamb la xalaatuma ko sax. kii mën naa ko gënal góos. lu garaaw laa lay wax nii gënal góos. mën naa ko jox tànk ba pare xoolal. wala boog moom mi xam na loolu. mu ñu gis sa combat bi mujj sa diggante Jaasi Pël. danga nga ñëw xeex xeex bu métti teel a lâché sa loxo yi chargé est-ce que loolu yëpp sóoraale nga ko ci combat bii nii. non loolu lépp xam nga tey jii combat boo jógee rek après côté dañuy liggéeyaat beneen. Hmm. amaana combat boobu ñoom ñoo gis loolu mais dama entraîné dama entraîné ba tooy si combat boobu mais bu dee cadre bu bëre xeex rek hmm. d'accord naa man mbër buy tax ngeen taxaw mu bëre moom. dañoo gis Sokh bu ndaw dafa yokk poids ne dafa mel ni nga war a wàññi moom mu yokk yow nga ñëw wàññi. maanaam bëre la wax bëre bëre man lu mu toll nii sax dama man bal maa bëgg a mën a ma gën a bëre ku ma ëpp fuuf gars yi ni kii nii tey bu ñëwee <laughs> amaana man dama xam ne samay gaa yëpp ay mbër ren woon mais amaana tamit loolu dugal ma si làmb de bis keneen cent franc laa doon bëre école la ñu may tëdd dama guddi ñu may dama ko déglu ma ne kan porté bu ko neexul dóor mais dañoo gis que seen signature bi nga ko fekk ko mu taxaw nga sol ko bal ko di ko peese lan nga doon jàng ci loolu loolu dara loolu affaire làmb la rek mais si biir géew diis na wala diis amaana man ñi may topp ñenn ñi ñenn ñi daa am ñu xam dañ ma xam bu baax ñenn ñi ma tee xam dañoo réer a mbir mais man dama xam sama bopp xam ki ma doon xam lu tam sama ginnaaw xam lu ma war a doon. waaw xam ñu ma war a bëreel. waaw foofu laa bëgg a ñëw dama dégg nga ne dañ koy suul dafa am ñu ko yónni di ko suul ñan ñoo ko yónni di ko suul. waaw xam nga maa ngi woo xam nga. ñëwoon ci question boobu. ñëw ci question boobu. question boobu dina ko tontu waat man li nga woote fii ma état dafa guddi. waaw élargement dama la coow na xam nga bu guddee xam nga rek waaw. man na Ndour Mossy gis na ñuy topp sama ginnaaw barke Sëñ Fallou moomee combat kenn dootul nelaw kenn dootul dallu amaana mënu ma lim kenn nag tey parce que combat bi samay xarit sonn nañ ci torop barke Sëñ Fallou bi la seer bi la Malika maa ngi koy jaale yaayam bi la seer Malika kooku sama nit la du waaw tey jii moom day yëkkati xaalisam di def si man taas noonu sama maam Ada Boy Baol noonu ay Zarko xam nga Lam man aw ma fayam amatul lu may wax si Lam Toora li may defal nii Bokar ma la waxoon barke Sëñ Fall ak li mu daj Ségueye maa ngi koy jaale maamam Ségueye sama cubukaay maa ngi koy jaale maamam maam dafa wàññeeku léegi moo tax sax teewul dafa dem waalo mais man maa ngi woo mboor mboor mbo Diñaax Farba Mesere Jéen Buureen Cepp man doomu mboor laa ba géej caare man dara du mooy daw sama yaram ak sama mbokk Casamance yëpp ku kam si booy Modou Badji xam nga Casamance nag Paa bi moo ma dëgg ma daw nga moom waaw tey jii di woo waa waa Parcelles maa ngi woo ñëpp ku si mel ne tam Moussa Moussa bu ñuul Moussa bu ñuul Alioune Diouf Tet waa Jibi xam nga ñëpp maa ngi aara aara Jokkel Mame Père Ba Modou Bey li mu wax man embrasé man ma man maa ngi fane bépp sos taw bandi non ñooñu aw ma seen fay quoi per ba nag maam per ba maam per bëgg mu jënd diggante yëpp man sama tas sama combat li def man koo xar xale yu ndaw yi a bëgg damay woo nit sax yaayam waaw ba ma ñëw mu dugal ma si këram ni ma sama doom ji barke sëñ Fallou li may wax bu amul yàlla bu ma am ndam ni ma sama doom ji boo dee bëre day jooy di jooy di jooy bëgg yi ma ma laa xamul lan la te deful ma leen dara amaana man xam ma ñëpp ma gën mu mel ni loolu sas la sas non loolu sas la ku lu kuy dawal sare amran super mbayaari ak ñu ñaga mbay aw ma seen fay doo ma lim kenn nag am na suuf am na suuf